moom suñu taawam képp koo xam ne ki gis nga ab taawam mel na ni gis nga ko li tax mu tàmbali sëñ Saliou nag li tax mu tàmbali sëñ Saliou nag ah, ki nga xam ne moom la sëñ Touba yebal ki nga xam ne moom la sëñ Touba yebal bu fi teewee bu fi teewee mooy sunu kilifa nun ñëpp mooy sunu kilifa nun ñëpp yàlla ji baara sunu mag a ngi nii yàlla ne mi ngi nii mooy magi sëñ Saliou mii mooy magi sëñ Saliou mii waaye tey nag waaye tey jii nag. sëñ Saliou mooy suñu kilifa ñun ñëpp. sëñ Saliou mooy suñu kilifa ñun ñëpp. sëñ Touba mu ko ngir sëñ Touba Cheikh Saliou mi ko délégué. ñorul ko ko magal gi ñor. ñor bu ko màggal gi ñor. moom Serigne Touba. moom Serigne Touba. loolu moo waral. loolu moo waral. mu yabati loxoom bu yàgg. mu yabati loxoom bu yàgg. ba luñ fi jëfandikoo. ba fi jëfandikoo. manees na ne moo ko joxe. manees na ne moo ko joxe. mu teg ci nag. mu teg ci nag. yabal turandoom wi. yabal turandoom wi. doomi magam. di doomi magam. muy Serigne Saliou. muy Serigne Saliou. teg ci taawam nag. teg ci ab taawam nag. muy Cheikh Mbacke. muy Serigne Cheikh Mbacke. loolu kon mel ne teew na fi. kon loolu mel na ni teew na fi. waaye nag. waaye nag teewul. teewul alaaji baaraa ngi nii mooy sunu kilifa alaaji baaraa ngi nii mooy sunu kilifa sama rakk yu bëri yi teew nañ fi nee rakam yu bëri teew nañu fi dama bañ a tàmbali lim tur te àgguma ci ñi te ñëpp daa bañ a tàmbali di lim seen i tur te du mën a ci ñëpp waaye nag waaye nag. mooy sama rakk rek. bu ne ay rakam rek. wala sama doom rek. wala ay doomam rek. kuy sama rakk ba sama doom. kuy rakam mbaa nga nekk di doomam. xam nga ne tudd na la. xam nga ne rek tudd na la. maa ngi sant maa ngi nuyoo la itam. nee mi ngi leen nuyoo la itam. ak xarit yi fi ñëw. ak xaritam yi fi ñëw. ak taalibe yi fi ñëw. ak taalibe yi fi ñëw. ginnaaw bu leen nuyoolee ba noppi itam. nee ginnaaw bu leen nuyoolee ba noppi itam. dana dana wane sama cant. dana wane ak cantam. seeral leen ko yéen bokk yi nga xam ne. seeral leen ko yéen bokk yi ngeen xam ne. yéen a tax ñu def ko. yéen a tax ñu def ndax lu ñuy def ci maam jaara. ndax lu ñuy def ci maam jaara. yéen lañ ko defal. yéen lañ ko defal. man seen ndaw laa rek lu fi nekk. nee moom day seen ndaw rek la lu leen fi nekkal. ah président Abdou Diouf nag. président Abdou Diouf def na ndaw rek. waaye nekkal leen fi. waaye nekkal leen fi. di seen bëkk néeg rek. di seen bëkk néeg rek. waaye nag. waaye nag. lu lu ngeen def. lu ngeen def. ci lu baax. ci lu baax naa leen ko ko nett dana leen ko won. dana leen ko won. ndax nit boo ko dee jëfal. ndax nit boo ko dee jëfal. war war koo xamal. war nga koy xamal. la la koy jëfal. la nga koy jëfal. te maa leen di sant li ngeen war a jëf. te mi ngi leen sant ci li ngeen di war a jëf. ngeen di koy jëf. yéen a ngi koy jëf. kon war na leen ko xamal ñoom na leen koo xamal ñi nga xam ne ñoom ngeen koy jëfal. taalibe yi itam. taalibe yi itam. maa ngi sant bu baax. sëriñ bi nee mi ngi leen sant bu baax. ci takku gi ngeen takku. ci takku gi ngeen takku. ànd ak man. ànd ak moom. ànd ak bokk yi. yi. nu bokk di màggal bis bii. nu bokk di màggal bis bii. di di fi ñaanal nu bokk ñaan ñun ñëpp. kon nag nee nañ fas bokk ñaan ñun ñëpp. sama ah, borom dolli jàmm ci réew mi. sunu borom dolli jàmm ci réew mi. Ah, sunu borom jubal may nu wér. sunu borom dimbali nu it may nu ak wér. jubal nañ ñëpp. jubale kenn ku nekk. kenn ku nekk. la nga yéene ci réew mi. la moon yéene ci la yàlla man loola ko. waaw boobu dàq fi lépp luy nuru ay. sunu borom mi dàq fi lépp luy nuru ay. ñëpp juboo. ñëpp juboo. mooy digal nag. nee mi ngi sunu borom. barke maam jaare bii fi nekk. barke maam jaare bii fi nekk. mu wàcce ko ci àdduna. mu wàcce ko ci àdduna. te àllaaxira lay rawee. te àllaaxira lay rawee. mu may ci loo xam ne. mu may nu ci loo xam ne. kenn ku ne da nga ko yóbbaale. kenn ku nekk da ko yóbbaale. kenn ku ne jëriñoo ko. kenn ku nekk it jëriñoo ko. ni mu tasaaroo ni mu tasaaroon ci réew mi. mu tasaaroon ci réew mi. ba dem bitim réew. ba bi gën yal na xéewal gën a tasaaroo. yal na xéewal gi gën a tasaaroo. jàmm ji gën a ëpp. jàmm ji gën a ëpp. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. tiit nañu ko wala ragal nañu ko. tiit nañu ko wala nu ragal ko. yàlla dàqal nu ko. yàlla dàqal nu ko. ci barke bi nu fi tedd. ci barke maam jaare nii.